wajjaha lilbaaqi bil infisaali jazaa baaxin jaada bittisaali wajjaha lilbaaqi bil infisaali jazaa baaxin jaada bittisaali wajjaha lilbaaqi bil infisaali jazaa baaxin jaada bittisaali يا باغيا ليس يموت سرمدا بحق وجهك وجاه أحمدا خذ من أرادني بسوء فورا أقصى عسيس لا يريني جورا لجدت بالعلوم والكتاب وبالحديث ما هي العتاب خدت إلي ما أكون معرفا بلا الجنان يوم عرفات ملكتني في العلوم والمنى لخدت من جلا وما تكمنا إلي خدت فيما قد اختفى على سوى خير البرايا المختفى لي خدت ما فاق بي الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني إلي خدما بي أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التجاني فاق وكنت لي بالمرجان عليهم الرضوان والسلام كما بهم قد انتقى السلام لي جبت ما سهزاني الدنس سرت خديما مصطفى مثل أنس ملكتني وخدتني إحسانا ورثت في مد النبي حسانا ورثني فقه الإمام مالك عليه رضوان الكريم المالك نفعتني لكنت بالمنافع وخدتني فقه الإمام الشافعي wajjahta lii minka munan latifa def nañ ko nam ci benn dërëm loolu nag borom jumaa ji nu ci dimbali ndax du sunu njàmbaar ñuy ñaanal yàlla nag sëñ Modou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér tan yàgg ci ginnaawam ndaw ñi it yàlla na leen yàlla jàppale sàmm leen teg leen ci yoonu njub li sëñ bi bëgg yàlla nañ ca tege la ñuy sàkku yàlla na gën a woom gën a barkeel tañ def ko ci fu neex boroom bi ci darajay Seexunal Xadiim ah rafet na kontaan naa ci yëgatuma dara caami yoo bi lan fanaan ba wàcc duggaat nii ñëw waaye yàlla xam ne yëgatuma coono bi. di leen sant ñaanal ci yàlla. jog moom mooy mottali yéene sëriñ Touba. ndax danoo waajoon fii waroon na siyaare ji Baytil Haram comme yàlla boole nañu nag ci ñi nga xam ne ma demoon di mottali yéene Serigne Touba jooju dañ leen di sant bu baax te di leen ñaanal. ndax bi ñu jógee fii sëñ Muntaxa mu baax mi def na booleeg sëñ Afe Buso mu ne sëñ Afe na leen gunge ñaanal leen bi mu ñëwee mu ñaanal ñu ubbil nu barabu sëñ Tuubaa bi nu siyaare bi siyaare bàyyi ko fi dem noonu nag dañoo jàpp ne comme ndaw lu ñu yónni woon lañu ñu demaloon sëriñ Tuubaa ci yéeneem jooje ah tàmbali nañ ko ci bisimilah rahmaani rahiim eggale ko ci alhamdulilah rabil alamin diggante Medina Makka. safa marwata ak safa def musdalifa dem arafa foofu yëpp li ci waral yépp def nañ ko gannaaw bu ñu fa bàyyi koy tam te te waat nañ ci jàmm bu ñëwaat fii ci jàkkee Sëriñ Tuubaa ji di ko xamal ne ko bis bu set nag buñ fa wàcci wut ñaari kaamil luñ ca man def nañ ko la ca topp mooy lii xasaayit Sëriñ Tuubaa yi moom luñ ca mën it def nañ ko te xam ne loolu la doon tagg yonent bi sallallahu alayhi moom rek moo doon ak bëggam nag ndokk ba nu ci yàlla boolee ba nu am luñ ca dox nuy ñaan yàlla nag di ko ñaanalee ñëpp kullu muslimi wa muslima bàyyiwuñu góor mag jigéen ndaw ñëpp lu ñu ñaan yàlla faj aajo yi defal nu nawet bu ànd ak tawféex ci barke Alla ji fallu daal moo moom mënoon nañ leen ko ci jotal ndax coono bee tax wax ji yëpp nañ ko nañ ko yéenee waaw dëgg ba waaw gone yi moom dañ màggat lu ba sama xol tooy ndax li ko waral it mooy na ma ko jàppe woon ak niñ ko gisee dafa rëy ci ñoom te man jàppe woon naa ko ndaw lu ñu yónni woon rek ma demal sunu sunu sëriñ lam fa jëlee nag xam naa ne la taxoon sëriñ Tuubaa di woo yonent man gis naa ko loolu moom sàkk laa kon nag sunu yeboo dalal sunu xel te xam ne sunu borom nangu na aj gi te ñëpp xëj nañ ci biir yàlla nu sama borom defal tawfiq ak taysiir barakatul mutabarakina ngeen gudd fan yéen gone yi te ngeen góorgóorlu nag ci sàmm ngor ak diine te jaamu yàlla loolu rek a fi nekk baax na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a ñëpp di ziare sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg te wér ah di wax alhamdulilah dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm alhamdulilah yoon bi moom amul benn jafe-jafe agence bi yor nañ ñu yor bu baax ñibbi ci jàmm ak salaam. waaw di ñaan yàlla lépp luñ fa ñaan rek suñu borom nangul ñu ko fulal ñu ko boole ko bépp bépp jullit baax Seydina Muhammad alayhi ya xayra xaalidin xamidin humida xalqu tabi fi xal imaami ahmada usman arada darari axsa aziz muqtadirin anta alqadir wal aziz laka xitaabi muqinan bi anni حل وإن كنك يا ذا المن خلبت للأعيان بالتبشير بالمصطفى المكرم البشير